Sonko pour dellu si ci moom nit yu jàmmala la di nit yu ay xëy na déclaration yi ñuy def nit ñi jàppee na kii ci xeex dañuy xeexu politique moo mel noonu nit ki dafa mel ni de ku ngeen di joŋante léegi leen ñu dégg kàddu yoo xam ne dañ naan eh, kii de xanaa déggoo mbër yi bu ñuy signé contrat lu nekk la ñuy waxante mais teewul ñu nekk ay sénégalais. waaw noonu mbër yi di def nag moo dab politique bi ku ci wax ab kaddu nga ni laa ilaha illallah kii day xam naa ne bu lii amul dëkk bay tàkk mm-hmm. non bu ñuy buñ ko xalaatee noonu jongante lu ñu nekk ci jongante boobu moom di leen ñu dégg ay kaddu yoo xam ne nii li nga sikk ci nit ñi te du kaddu yooyu la bëgg wax mm-hmm. mais dafay won beneen mbër bi ne ko déet man kat boo defee nii dooma jaay fit parce que maa la fit mm-hmm. dooma jaay gën a tàng parce que maa la gën a tàng ah waaw da nga yaakaar ni mën nga liggéey lii ak lii ak lii ten naa la wax leen li nga defoon lii ak lii ak lii dara baaxu ci parce que nii la demee naa la demee naa ana résultat bi lenn la ñu gisul xam nga seen kàddu noom la boo toppee politique boobu nag léeg-léeg mun na la réeral vraiment en toute sincérité daf lay réeral réeral réeral ba nga ñëw nag suivre télé gaa ñiy analyser aussi yokk dégg <laughs> wax ci yoo xam ni man des fois damay déglu ba ci yàgg sama ne waaw ñii xanaa fekkuñu jamono yi Lamine ak Senghor muy SFIO ak BDS foofu gënoon tàng foofu allahu akbar kon ni jamono ji doxee nii yii man du dara mhm. du dara dafa mel ni ñaari mbër yu nekk yu waajal jongante buñ ca paree panel ci ñi des ci wax ji mooy ñi nga xam ne nii ñoo nekkoon ci kii réseaux sociaux yi di wax rek man noonu laa ko jàppee moo tax gis nga aussi euh, sëriñ si bugga naa ñu def attention ko waaw parce que am na yoo xam ne nii soo ko waxee dafay euh, boo indiwul déggin wi nit ki comme fii Sénégal lañ nekk te dafa naqaree wax loo ci wax mu jëm ci kii wala ci kaa am na ñu ko nit ñi di gisee interprétation bi ñuy def vraiment loolu la ñu war a wal ñu nekk ay gentleman ko xam nga li ma bon j'aime bien ça ñu nekk ay gentleman ku ci nekk wane sa xam-xam ci lenn loo xam ne nii intérêt réew mi la j'aime bien l'émission la bi ñuy def ITV intérêt général bon ça dit tout mais xaba bu lu ñu ti lan pour l'intérêt général maanaam pour loo xam ne nii askan wee ko moom nañu déggee noonu yenn wax yi te bañ de xaabaabal bay dëkkal nit ki fu mu dëkkul loolu moo gën a yàq senegal te senegal ñaari feebar la am dama koy faral di wax dëgg ak jub billahi laa wax dëgg ak dañ koo feebara feebara feebar ba nga xam ni politique bi dafa dafa ndax loolu ba pare ñuy jaawale yeneen ñaar lii di politique lii di justice dañu dégg nit ñi di wax di wax di wax ba nga xam xamoo lu ci justice xamoo lu ci politique lépp la ñuy mélangé léegi da leen jël politique bi dugal ko justice justice bi dugal ko ci politique di di mélangé ak mélangé mélangé indil la ay articles yoo xam ne nii ñi nga xam ne nii ñoo voté woon articles yi wala ñu génn ko sax ñoom seen bopp bu ñuy développé boo mu siw ñu reer te buñ fa nekkoon ñoom dinañ leen weddi ni leen li di wax li ak lii ngeen wax weddi leen ci kii nangam pourtant lii nga waxoon nangam nangam moom lu mu jàng la am ca xam-xam donc lu muy wax war ko xam donc ki nga xam ni nii ma nga jublu ci loolu aussi na am xel di fàttaliku ni ñi muy waxanteel xamuñu métier bi nga xam ne nii moom la am di ko dawal te ñi ñi gën ko ràññee ci loolu donc nay def attention ci population bi nga xam ne nii ñoom la jiite parce que ndombal baat buñ la ko euh, joxe booy waxanteeg askan wi te moomuloo leen da ngay xam fa nga leen di junjee di waxanteeg ñoom lu ko mooy rëq-rëq day am ñu jëlee ko nii wala naate Sénégal moo mel noonu doo fi wax benn wax te critiqué wuñ la wala ñu dëkkaloo la foo xam ne nii dëkkoo fa wala ñu yóbbu ko tawi ko ba nga xam ni nii day mel ni lasper te bu dellu si dafay metti ci yow. Euh, Papa Lamine Ndiaye dañuy dugg ci li nga xamante mooy procès bi nga xamante ne Ousmane Sonko fas yéene na ko am ginnaaw suba mu toll mu yemee 17 avril bi ñu jëm si euh, gis nañ ne ay wax la yëkkati woon daal koy teg ci ki nga xamante ne mooy kaw Mame Mbaye Niang jotoon nañu leen a àtte nag waaye kii di Mame Mbaye Niang dafa daal def appel ba ñu war leen a woo euh, lundi bii nii incha allah lan nga mën a jàngat ci loolu. loolu de la ma waxoon rek laay dellu man jàmm laa ci séntu. fa muy mujj. ci jàmm rek la jàmm laa ci seen dégg naa aussi benn sëriñ boo xam ne ku ma apprécier la parce que murid la ni man mu wax ci ba tudd chiffre 17 am na xam-xam war fa kàll allah mais am na loo xam ni boo ko jëlee def ko ni révélation day tiital nit ñi nee ne numéro set boobu baaxul parce que un bi bokkul set la te set fu mu kiiwee am na loo xam ni moom lay signifier xam nga loolu xam la boo xam ni ci chiffre yi la nekk maanaam 17 am na ñuy wax ni 10 ak set ñii di wax ni 1 bi bokkul 7 bi ngay war a considérer te 7 bi rek moom dong baaxul donc bon xam-xam boobu ñi ko xam ci askan wi bariwuñu yow nga nekk sëriñ am loolu soo ko waxee rek te nit ñi gëm la vraiment li ngay wax lu ci bari dëgg lay doon mais dañuy yóbbu affaire bi foo xam ne nii peut-être euh, sax c'est que ça mais defal nit ñi daal ni waaye nañ génn sarax parce que bu joxee lii ak lii ak lii ak lii loo gis ci àddina am na saraxam parce que sarax moom mooy faagagal yoo xam ni nii euh, lu naroon dal nit kii la wala daal ma mais nit ñu bare nii di dem laaxira mais am na ñoo xam ne nii bu doon yenn sëriñ si dañ naan ko la nga ñàkk saraxe nangam parce que dañ lay dëggal ne la defal sarax bi pour sa bopp la nga dëgër bopp bañ koo def fekk safaan waa ngi teew di la xaar léeg-léeg nga def sax sarax bi fekk na bés bañ la waxee ak waxtu ba wees na donc loolu aussi dina gàllankoor nit ki ci boppam bon donc euh, sarax baax na lool war fa kàll macha allah Sénégal ci boppam lañu war saraxal man bu nekkoon place am loolu ma xam ko yàlla dénk ma xam-xam boobu danaa seet lu koy paare comme li ñuy wax pare-feu xam nga pare-feu pour bañ safara si gën a euh, yóbbu boppam foo xam ni nii yàlla xam doy na te boobaa dafay metti du metti ci yow rek du metti ci keneen aussi tamit de trop mais askan wi yëpp lay laal bu leen nar a def loolu tee nga seet loo xam ni nii mooy dimbali askan wi ci loolu nga wax leen loolu ne leen ah man de seet naa lii lii baaxul waaye nañ def sarax def nii def nii def nii bu ñu defee nii dana fànq loolu tey ko walla nañ def attention mais euh, boo ci dugalee nit ñi rek mën nañ ko déggee neneen noo xam ne yooyu laay wax ni donc nañ koy moytu parce que bu jaful it day indi loo xam ne nii dafay tàkk tegu fa tàkk tegu nag mujj mooy takk takk boo xam ne nii buñ ko néewalee rek mën na indi jëppet donc yooyu may ñaan euh, ci ndimbalu sëriñ si vraiment en toute sincérité lépp lu ñu gis loo xam ne nii dafa safaanook luy defar te war a yàq nañ ñu dimbale ba buñ ñuy wax nañu fexe ba wax ñu lan moo koy fay wala njëriñ li nga xam ni nii bu ko naree indi nangam ji lañ war a def ba ngir mu indi njëriñ loolu wala kat ñu bañ sax loolu am moom gaa wax na ko nee na carrément xanaa ñu dàq bés beeg yooyu bañ koo def 17 boobu parce que 17 chiffre la boo xam ne baaxul bon trois fois macha allah baaxul mais am na loo xam ne nii tey mën na ko defar ba loolu kii wax na ko sax ci biir nee na moom dina def kéemte lay kàttanam je l'apprécie billaahi su ma ko xamoon dama koy set parce que ñoo bokk aussi la mais damay kii ba si ak sa tur wi réer ma quoi. ndax jàpp ne lu mu wax day day firndee nii la di set incha allah mën na am tàkk-tàkk wala mën na am loo xamante ni. man du ma ko weddi parce que dafa wone ay preuve am. Mm-hmm. ci yu bari. te man dama koy suivre de trop parce que murit bi mu doon la dama koy suivre de man ni ma mel ci murit yàlla rek ko xam gis nga foto bale mhm. na ko jël ma nga neelu ci roq mhm. kooku sëñ Tuubaa la mhm. non dama bëgg rek ngeen xam ko parce que man li fi nekk bu ma ko amee it moom moo ma ko jox dama ko bëgg bëgg bëgg ba awma ci sago ba ma fekkoon keroog ba may dugg ci kër sëriñ Fallou di yeesal sama jébal foofu parce que dama njëkkoon jël euh, wér ci kilifa Kara waaw yees dem na dem naa Modou Kara dem naa fa moom kër gi mu tëral ma tëral boo xam ni waa Fakal macha allah tey mënu maa wax euh, vraiment te tudd ma ko ma koy ñaanal parce que sëñ Modou Kara ku baax la ku yiw vraiment en toute sincérité te la ma fa yóbbu woon xër la. déjà benn parce que sama doom taalibe la ci moom donc yooyu yëpp ba pare mu am fii euh, benn benn kii boo xam ni xale yi ko sos dañuy faral di ñëw fii ci kër gi di waxtaan ak man man aussi may def sama képp lay kattan di jéem leen jubbanti jéem leen won yoon dégg ñoom xale yu baax lañu lu xew fii ci kër gi ñoom ñooy ñëw euh, bi may rappelé wu mooy benn anecdote la. Euh, sàcc yi dañ ma lëjuloon fii mais gone yooyu ñëw fexe ba sàcc yi dem waaw parce que dama daan ñëw dugg si ci kër gi te sant cee kenn koo xam ne bi muy wër rek di wër di wër boobu tabaxaguñu kër gi nii mais day dugg ci roq génn ci roq boobu duggaat feneen di ko def di ko def di ko def man maa ngi ko teylu rek taxaw nii ci biti di ko xool boobu amul woon buntu kër donc xëy na looloo tax sa moom mu osé dugg ci biir mais bi ko Baye Fall yi yéegee fii dañ ko ñëw keroog yooyu sonal nañ leen lool lool lool parce que vraiment war nañ leen ni kër gi moom këru taalibe la waaw dafa am nu muy demee yoo xam ne nii eh, kenn du ko fi indi donc loolu anecdote la woon ma jéggi fa ñëw ci eh, waaw procès bi eh, mbay ñaa wutul luy taal dëkk bi libre na parce que citoyen la mu am procès e ñëw demandé man li ma jaaxal rek mooy pourquoi mu dem euh, kii parce que dama daan gis yow ñu tooñ la nga demander à ce que ñu reprendre procès bi mais bu ñu la joxee dëgg ne la yow yaa daan looy indeeti beneen procès nga kii ko. Euh, élection yi euh, kii bokk ci Ousmane xam nga loolu la wax mais Ousmane Sonko <laughs> euh, xam nit xam jikkoom ko gën. billahi laa la wax fi mu toog nii suñ borom ci boppam moo ko samp kon lu suñ borom samp. jëf ci lu baax moo gën moo gën na yenn yi da kenn xamul lu muy nuru ci procès bu njëkk ba nu mu demee dafa mel ni avocat ba ci boppam dafa xam li nga xam ni sénégalais yi bëgg nañ ko mu ne donc naa ko àttee nii pour bañ coow am ci dëkk bi pour bañit euh, nit ki ma yàqal ko ay droit civil am donc loolu def na ko ba nit ñi naan alhamdulilah nga ñëw doole ci ci xar mi karaw ah, dafa am muy nuru cela veut dire li nit ñi di wax parce que bukki dañ koo laaj luy dëgg mu ne lu ñëpp wax ay dëgg donc suñ ne eh, kii dañ ko bëgg a xañ mu bañ bokk ci procès bi ngay liggéey lu ni mel wala lu nuroog moom wala lu dend ak moom ah dëgg day jib parce que yow daan nga ba pare ñu mu war a la fay xaalis boo xam ne am na sax benn joueur bu wax ni moom cent millions yi dana ko fay. yooyu yëpp intervention yooyu yëpp nit ñi def te buroon doon euh, partem rek ñoom xaalis boobu mëtal nañ ko bu yàgg. tiitu ñu loolu. mais duggaat feneen foo xam ne nii day yee fitna. loolu laa comprendre ci mbay. je n'ai pas compris du tout. la mu ko duggee nag moo ko xam. ni ñoom dañoo yore seen gémmiñ ak seen làmmiñ du wax. lu nekk dinañ ko xalaat ne lii la laa la nangam nangam man sax mi ngay laaj nii maa ngi ciy wax te sama yoon nekku ci xanaa dañoo gis Sonko fii rek euh, te war na fi ñëw du ma jàmbur ci moom